maa ngi ñëw ci yow jërëjëf baal ma mbokk yi Petit Lo moo nekk ci digg géew bi waaw Petit Lo moo nekk ci digg géew bi ak Jackson numéro 2 ndeysaan runkum daje lay doon daje nañu laa ilaaha illallaah jàppante nañu ndeysaan Petit Lo fii génn saako yi noonu. leen. mbokk yi arbitre bi sifla woon na combat bi mbokk yi Petit Lo sunu càmmoñ ndeysaan Jackson numéro 2 sunu ndeyjoor mbokk yi ñaari xale yi ñu ngi lewtu ndeysaan Petit Lo mi ngi dox ci kawam ndeysaan dimanche ci heure bi ci ñoom ñaar laay laay loola daje nañu laay laa Petit takk na ko daan na ko laay laay lala ndeysaan xale boobu moo doon Modou xarañ lu xale boobu mooy doomu Tëngéej bi ak ciwlin bi ak parcelle bi waaw waaw daan bu rëy mbër da ngay am lecture. ndeysaan petit loo ngi noonu. waaye xale bi moo daan jël bu rëy waay waaw waaw xale da ngay liggéey da ngay liggéey boo liggéey da ngay ñëw da koy wane bés bi yàlla sàkk ma wax leen ko liggéey leen te di wane li liggéey lan la waaw bés bu mag dafa am solo ngay wane sa bopp ndeysaan xale boobu moo dund Modou xarañ loo ndeysaan moom champion la xale la boo xamante ni bu góorgóorloo mën naa dégg daali moom petit loo waaw daan na jël bu rëy tey ndeysaan Petit Lo daan na jël bu rëy waaye Bass Family jërëjëf Bass Family maa ngi lay nuyu waa nit ku baax suma rakk